mbokkenteenno di ziyaar naa leen mbaa a ngi am jàmm ma ne ko ci cey indeeti naa histoire bu doyati waar ndeysaan lii benn waay la waa ji nee na moom Dakar la dëkk parcelle unité 26 nee na moom am na 30 ans nee na nag chauffeur la en même temps yàlla may na ko mu am taxawaay di mesurer un mètre quatre-vingt-dix njool ci kaw nee na ba pare teint la ba pare nekk nit koo xam ne aussi dafa bëgg lii di entraînement nee na ba tax na mu daal di xaw a ceene nee na donte nag taaruwul bañ koy joxoñ waaye it nekk na daal nit ku normal vraiment nit koo xam ne yàlla may na ko jëmm joo xam ne ku ko xool da koy xoolaat nee na ba pare nag mu daal di nekk chauffeur nee na benn métier boobu kese kese nag la am chauffeur kese la nekk nekk ci di liggéey nee na le 12 avril 2024 bi passé mu dem liggéeyi nee na bi mu demee liggéey yàlla def mu nekk ca liggéeyukaayam ba 22 heures 23 heures nee na mu daal di wàcce nee na bi mu wàccee nag mi ngi jóge woon côté point E nee na bi mu jógee point E nee na mu daal dem ba xaw a sori nee na benn borom moto daal di ko yóbbaale na borom moto bi yóbbaale ko ba fi nga xam ne moo di rond-point Saint-Lazare daal di ko fay wàcce nee na borom moto bi ni ko man Liberté 6 laa jëm livreur la xam naa ne fii laa yem ak yow ndax damay jàdd li nga xam ne moo di brioche dorée bi duma mën a continuer ak yow ma ne ko ca nee ci noonu nag borom moto bi daal di koy wàcce nee na mu daal di taxaw ci côté rond bi di xaar beneen euh, borom moto wala sax keneen rek koo xam ne mun na koo yóbbaale ba fi mu jëm ndax nag dafa xawoon guddi. nee na fi mu taxawee noonu di xaar te moom nee na bu guddee day xaw a ragal ndax nag peut-être Dakar parfois agression yi wala ñu gis la yow kenn ngay dox euh, vers vingt-trois heures jàpp minuit wóorul. nee na nag ci noonu rek benn femme daa di gaare ci ay tànkam nee bi femme bi gaaree ci ay tànkam daa di koy laaj foo jëm nee na mu ne ko parcelle unité 26 nee na femme bi ni ko ah yow de guddee nga nee na mu ne ko waa gis nga de tey moom dama guddee ndax nag dama doon faral su may wàcc ma daa di yóbbaale sama oto patron bi mais nag kom suba liggéeyuwuma ginnaaw suba liggéeyuwuma moo tax indaale wu ma oto dama gaare oto bi dox ñibbi nee na ci noonu nag femme bi daal di ko kon yow chauffeur nga nee na mu ne ko waaw man chauffeur laa nee na bi mu waxee femme bi chauffeur la nee na femme bi daal di ni ko man de sama oto bi sax da doon am ay jafe-jafe ndax nag oto bi parfois day nekk di tàng lool boo koy dawal nee na femme bi daal ubbi lii di capot oto bi daal di ne ko xoolal tableau de boor bi nii lay def day yéex yéex ba pare nee na ndaw si ne ko oto bi daal tout le temps rek dafay nekk di tàng nee na mu daal ne ndaw si ah bon kon oto bi noonu lay def nee na ndaw si ne ko waa nee na moom ci boppam mu daal di ubbi radiateur bi nee na bi mu ko ubbee mu fekk sax ndox mi tàngul mais femme bi moo jàpp ne rek dafa tàng nee na mu daldi di expliquer bi ni ko lii oto canadien yi la moo koy def ndax nag ñoom seen température ak suñu bos bokkul loolooy waral ngay jàpp ne oto bi dafay tàng mais fekk sax tàngul nee na nag mu ne ko le fait bokkuñu température ñu nag ñoom te oto yi fa lay jóge dangay jéem a fexe nga changer lii di thermostat bi mu ne ko ca cey cey nee na bi mu waxee loolu femme bi ba pare nag nee na femme bi ne ko léegi yéegal ma yóbbaale la comme xoolal nga ma nga ne ma oto bi dara nekku ci nee na mu daal di yéeg bi mu yéegee nee na mook femme bi ñuy waxtaan ci oto bi nee na femme ne ko fan nga dëkk nee na mu ne ko parcelle unité 26 laa dëkk nee na femme bi newaat ko ndax am nga soxna nee na mu ne ko waa am naa soxna nee na femme bi di ko poser ay question muy tontu dem na sax ba daa koy wax dat bi mu marié maanaam date bi mu takkee soxna sax dem na ba daa di koy wax lii di femme bi nee na bi ñu nekkee noonu ci waxtaan bi nag nee na femme bi ni ko man de parfois damay soxla ay chauffeur yu may doxal kursu comme nag damay soxla ay chauffeur yu may doxal kursu est-ce que war nga maa mën a jox sa numéro parfois su ma soxlaa ku ma doxal ay course bu ko defee ma woola nga daal di ma koy yóbbul nee na ma daal di ne ko loolu kay amul benn problème ndax man nit yi ci boppam parfois dañ may woo ma di leen yóbbul ay marchandise wala ay bagage di leen ko doxal ay course le fait que man chauffeur la nee na mu daal di yëkkati numéro téléphone daal di koy jox femme bi nee na nag bi mu joxee femme bi numéro téléphone moom femme bi jëlul bosam bosam rek la yëkkati jox ko femme bi nee na trois jours après nee na femme bi daa di koy woo mu décroché nee na bi ko femme bi woowee femme bi ne ko man de maa ngi nii côté BCEAO maa ngi foofu di entraîner nee na femme bi ne ko dama ñëw nag ba BCEAO di entraîner mais sama oto bi dafa far te nag oto bi nii mu paanee nii wax dëgg fa yàlla gisuma fi kenn koo xam ne wóolu naa ko pour mu dépaneel ma oto bi léegi nag ma ne woon bu fekkee ne yaa ngi sa kër nga jël cak-cak wala nga jël taxi nga ñëw soo ñëwee dinaa ko fay nee na mu daal ne femme bi oto bi lan la paan comme ça ma préparé ko nee na femme bi ne ko sama pneu bi pneu laa paan nee na mu ne femme bi dangaa yor kele nee na bi ne ko yor naa kele yor naa aussi cric yor naa aussi pneu secours léegi yow soo ñëwee rek danga may régleel carrément yooyu yëpp yor naa ko nee na nag comme nag soriwu ma dëkk soriwul bu baax a baax ak BCEAO nee ma daa di jóg daa di takk dàll yi daa wutali fi femme bi nekk pour jàppale ko ci paan bi mu ne da paan nee na nag c'était vers zéro heure nee na ay zéro heure la ko femme bi woo ko maa ngi côté BCEAO dama demoon entraînement sama oto daldi di paan nee na bi ma demee bi may dem yóbbaale wu ma téléphone portable ndax nag xàmme naa oto femme bi dama ne rek naa dox su ma eggee dinaa xàmme oto femme bi nee na ma dox ba jub si ma daal di seen oto bi ma daal di koy xàmme nee na ma ñëw fekk femme bi mi ngi tëju ci biir oto bi nee na ma daal di fëgg vitre bi bi ma fëggee vitre bi femme bi ubbi daal di ne ma yow sax de temps bi nga def ci yoon bi tax na am na ku fi daal di may dimbali ba daal di may changer lii di pneu bi mais nag comme dama laa xesoon a woo ba nga déplacé wu ba pare wax dëgg fa yàlla dama ne naa la xaar ba nga ñëw moo tax ma ne naa ci oto bi xaar la comme nag déplacé naa la ba pare nee na femme bi ne ko wax dëgg fa yàlla borom mbaax nga dama laa woo rek wax la dama paan nga daal di bàyyi li ngay def ci guddi gi nga ñëw léegi nag comme fekk nga ñu dépaneel ma ba pare amul problème vraiment borom mbaax nga nee na femme bi daal di yëkkati soixante-dix-huit mille daal di ko koy may ne ko lii maa la ko may ndax nag dama laa déplacé ci guddi gi nga daal di ñëw nee na bi ko femme mayee soixante-dix-huit mille yi ba pare mu daal di koy jël mu ne après femme bi ne ko dangay ñibbi mu ne ko waa nee na femme bi ne ko léegi comme da ngay ñibbi yéegal ma yóbbaale la aussi ba fi nga jëm nee na mu dal di yéeg ci oto bi mook femme bi ñu continuer seen waxtaan nee na bi ñu continuer seen waxtaan ba rond Liberté 6 bi ñu eggee fi di rond-point Liberté 6 nee na mu daan ne femme bi fii baax na ndax nag fi ma dëkk su ma wàccee ci rond bi damay dox tuuti rek daal di dugg sama koñ daal di egg nee na femme ne ko yow kay le ngay wàcc di ñibbi est-ce que doo ñu dem sama kër ñu daal di reer nee na ma ne ko ah dafa guddi te man suba dama yeewu 6 heures du matin dem liggéeyi léegi nag comme dafa guddi bàyyi rek ma dem ba beneen yoon nee na femme ne ko moo yow du yàgg en plus man maa lay déposer boo reeree ba pare te reer yàggul ñëw rek ñu dem kër ga nga reer ba suur après ma daal lay euh, déposer waale nee na mu ne amul problème nee na mu daal di d'accord ak ndaw si wàccatul rond point liberté 6 bi mu waroon a wàcc mu daal di continuer ak ndaw si ca bi ndaw si dëkk nee na bi ñu demee ba nga xam ne mi ngi yéeg ci appartement ndaw si ci kër ndaw si nee wax dëgg fa yàlla sama fit bi da doon maas nee bi sama fit bi di maas nag ma daal di ne ndaw si ah man de sama fit bi mi ngi maas depuis ba ma tegee tànk ci sa kër gi ba tey dama mel ni ku ragal dama ragal trop nee na ndaw si ne ko moo fii de amul problème koñ bi amul benn problème xanaa gisoo vigile bi ci suuf te nag kër yépp am ay vigile fii daal bul dara du la fi dal nee na mu daal di takk fitam daal di continuer ànd ak ndaw si ñu dugg ci biir nee ñu egg ndaw si daal teg lekk yi nee na wax dëgg fa yàlla ñu daal di lekk waxtaan ba pare nee na ndaw si ne ma ndax dangay naan ataaya nee na ma ne ko waaw damay naan ataaya nee na ndaw si won ma cuisine bi ni ma cuisine baa ngi nii mun ngaa dem nga daal teg ataaya nee na ndaw si won ko lépp rek loo xam ne da koy yittewoo pour ataaya bi nee na ma commencé di ataaya nee bi ma commencé di ataaya dama taxawoon ba mu yàgg ma sëgg di fuural kaasi nee na fi ma sëggee di fuural kaasi rek nee na man daal ma jékki-jékki ndaw si taxaw sama ginnaaw rek commencé ma caresser nee bi ma commencé caresser rek ma daal di rek ma daal di bàyyi kaasu ataaya bi mu toj <laughs> ma ko ca cey yàlla baax na nee na bi ma bàyyee kaasu ataaya bi mu toj nee na may lox di lox di lox sama tànk yi sax mënatul a taxaw ak sama loxo yi ndax tiit nee na ndaw si ni ma bul tiit ndax nag fii kenn nekku fi man ak yow rek ñoo fi nekk jarul ngay tiit mais nee na moment boobu maa ngi tiita tiita tiit ba nga xam ne dama doon lox partout ndax ndaw si ni ma doxee ginnaaw rek commencé di ma caresser nee na ci noonu ma daldi ne ko bàyyi ma ma toog ci canapé bi ci saal bi nee na ndaw si ne ko déedéet jaru ko comme yow dama laa jage rek ngay lox kaay nga dugg ci néeg bi ñu waxtaan nee na ndaw si ànd ak moom dugal ko néegam nee na ndaw si commencé di ko expliquer jaar-jaaram nee na ndaw si ne ko am naa cinquante deux ans mais nag xaalis du dara xaalis du sama problème lépp loo xam ne rek bëgg nga ko soo ma nangulee lii ma bëgg nga defal ma ko xaalis du problème te lépp loo soxla dinaa ci taxaw nee na nag mu ne ndaw si man vraiment làkkat la te man xaw ma yenn yi dama bëgg nga wax ma lan nga may doye nga daal ma koy wax moo gën ndax vraiment li may defloo nii xaw ma ko ndaw si ne ko dama bëgg nga tëddee ma nee na nag foofu mu daan ne ndaw si man làkkat la vraiment yaree wuñ ma yenn yarin yi ak di def naka sudul noonu te beneen bi aussi yow sama moroomu yaay nga ndax nee na ndaw si cinquante deux ans la am te moom trent ans la am nee na ndaw si daal di insister ba sonn nee na ma ne ko wax fa yàlla tëddee bi mënuma ko ndax nag man yaree wuñ ma noonu nee na nag ci la ko ndaw si ne tëddee ma moom di ko def par A ou par B ndax nag soo ko deful soo bañee ne danga may tëddee damay yuuxu te su ma yuuxoo vigile bi dalay jàpp su la vigile bi jàppee moom bu la jàppee yeneen moroomu vigile mi dañuy ñëw dóor la ba ngay bëgg a dee ndax nag sàcc lañ lay teg te sax li gën a metti ci loolu mooy zone bii ma la dugal su la fi dara dalee soo koo ko nettali danaan la yaa ko teg sa bopp ndax yow xamoo ne zone boobu dañ koo sécuriser ak ay vigile soo fa demee buñ la yuuxoowee sàcc ba gaañ la fa yow yaa ko teg sa bopp mu ne ñaari naqar yooyu ngay am comme nag fi munoo féera ci ndax boo yëg boo nee danga may bàyyee nii dinaa yuuxu sama visile bi jàpp la moroomu visile mi yow ñu dóor la te kon kenn mënu laa setal ndax dañ naan zone bi lu la fi dugal yaa ko teg sa bopp kon nag nangu rek moo fi sës nee na ci noonu nag ma daal di tiit vraiment nee na ma accepté tëddee ko ndax nag nangu laa mujjee def pour ma mën a mucc ci ndaw si comme nag menacé na ma te wax na dëgg euh, quartier bi ma dugal euh, ay visile kese la kër boo romb mi ngi am visile te nag comme guddi na presque une du matin moo doon waaj a jot te man sax dama ne ko woon su ma ñëwee réer fu une heure jotee su ma paree ataaya damay dem far mu piégé ma noonu à fin ma dal di nangu ndeysaan nee na une heure laa waroon a ñibbi. waaye nee na une boobu dama ko mujjee teg ci suuf ndax nag maire bi daal na may menacé nee na ci noonu ma daal di accepté defal meer bi li mu bëgg nee na maire bi ni ma man amour sauvage la bëgg maanaam buñ ci nekkee dama bëgg nga may mbéj di ma saaga ndey di ma def daal amur yu méttee méttee métti man loolu laa soxla nee na nag mu daal di accepté li maire bi wax mu defal mair bi amour sauvage bi nga xam ne moom la mair bi bëgg nee na mu nekk ci ak moom di ko def lu mettee metti di ko mbéj di ko daggal ay saaga di ko xoj nee na maire bi daal loolu la doon bëgg nee na en même temps bi aussi am na moment yi muy toll moom maire bi nee na maire bi dem naa dema dem bay wàccu ma ne ko nee na nag moment yi nga xam ne moom maire bi ñu ngi ci muy xoj maire bi di ko saaga di ko mbéj maire bi tamit di saaga waale boppam di yuuxu nee na ba mu yàgg maire bi ne bëreet jóg ne dafa am envie wàccu nee na dafa jàppoon ne su bi wàccoo dafay jaaree doyal sëkk ci rapport sexuel bi ñu nekkoon di def ci guddi gi yépp mais nee na li ko jaaxal ba jaaxal ko maire bi bi mu wàccu jee ba ñëw maire bi dane ko nañ continuer ma ne ko ca eskay cey nee na ñu continuer nee na moom nag xamul ndax entraînement yi la wala déet waaye daal yàlla may na ko mu mën a def ci rapport sexuel ay minutes yu bëree bëree bëri daf ci yàgg ba nga xam ne même digganteem mak soxnaam sax noonu la ci yàggee nee na nag moo tax na jour boobu moom maire bi ñu yàgg ci ba egg ci lool nee na nag maire bi amour sauvage la bëgg ay daggi saaga ay nga xoj ko ay nga mbéj ko ay nga dóor ko nee na moom loolu la mujjoon di def maire bi nee na parfois sax maire bi tamit dem ba nga xam ne moom ci boppam mooy toll ci moment boo xam ne maire bi ci boppam mooy saaga boppam ma ne ko ca eskay nee na guddi gi yëpp ñu nekkee noonu nelawuma nee na nag ma dem ba mu yàgg ma ne maire bi man wax dëgg fa yàlla dama war a jóg 6 heures du matin dem liggéey kon nag bàyyi ma ma tëdd tuuti te fu 6 heures jotee damay jóg ñibbi nee na maire bi ne ko amul problème mun ngaa tëdd nee na mu daal dem daal di régler lii di réveil bi nee bi mu régler réveil bi pour bu 6 heures jotee mu jog nee na mu nelaw tuuti rek 6 heures jot ndax nag presque guddi gi ci loolu lañ nekk ay mbéjante ko dóorante ba mère bi di wàccu ma ne ko cëy yàlla nee na réveil bi sone ma daa di jog nee na bi ma jógee mère bi ne ma sangul nee na ma ne ko noo garaawul su ma ñibbee sama kër dinaa sangu nee na mère bi insisté ne ma sangul rek nga dem nee na ma sangu ba pare maire bi insisté waat ne ma naa ko mayaat benn ci six heures du matin bi bala maa dem ma ne ko ca mbokku internaute di cey nee na bi maire bi insisté naa ko mayaat benn bala maa dem nee na ma nu may def faaw ma nangu ndax nag maire bi def ma napp ci visile yi niñ fa nekkee bala ñu ma faa sot dóor ma te maire bi nee na su ma nangul lu may def su ma ñibbee kenn du ma xàmme ndax nag dinañ ma dóor ba may bëgg a dee nee na ci 6 heures maa encore ba ma sangoo ba pare ma mayaat ko benn pour ma mën a rëcc dem ñibbi ndeysaan ma ne ko ah doom sondu nga ndeysaan nee na bi ma paree ci 6 heures maa ngi nag maire bi daal di yëkkati cent mille francs daal di ma koy may ma ne ko ca ah cey nee na loor nag déppi guddi googu bi mu yeewoo ba mayaat meer bi benn ba meer bi mayaat ko deux cent mille francs nee na déppi loor moom dafa ragaloon meer bi te bamu duggee kër meer bi dafa tiitoon mais nee na loor moom ci boppam moo commencé léegi di woo meer bi ma ne ko ca eskay nee na ba pare chaque semaine moom meer bi dinañ ci gisante six fois ci semaine bi juróom benni fan maanaam ñoom semaine bi presque li ñuy gisante dafa bëri daanaka semaine bi yëpp la ñuy gisee nee na six fois de nañ ko gisante ci semaine bi moom maire bi te ci six fois yooyu bu dee ci journée bi la ñu gisante ci journée bi dinañ def rapport sexuel quatre fois ci journée bi nee na guddi la gisante aussi ci guddi gi aussi dinañ ko def quatre fois maanaam ci six jours yi ñuy gisante moo xam ñu gisante guddi moo xam ñu gisante bëccëg daal quatre fois rapport sexuel yi moom day assuré moom mère bi ma ne ko ci yàlla cëy nee na ci noonu nag affaire bi dem ba commencé koo dépassé ndax moom nee na dafa am soxna te soxna bi mi ngi mu bàyyi seen dëkk nee na soxna si ci koor gi rek la nekkoon ak moom Dakar après koor gi la ñibbi nee na nag li muy def du yoon nekk ak maire bu am 52 ans di gisanteek moom 6 fois ci semaine bi ba pare saa yu gisantee ci 6 jours yi ñuy gisante chaque chaque jour ci 6 jours yi dinañu am 4 fois rapport sexuel te mu yor jabaram nag vraiment nee na dafa dem a dem ba affaire yi neexatu ko. nee na ci gisanteem ak maire bi aussi dem na ba xam ne dafa yàq lii di liggéeyam ndax nag moom cinq heures du matin la waroon a jóg pour mën a egg fi nga xam ne fa lay liggéeyee mu mën a déposer patron wam fi muy dem mais nee na dafa dem a dem a dem ba nga xam ne liggéeyam yàqu na nee na dafa xëy ñu daal di koy dàkk ndax nag su jógee kër maire bi cinq heures du matin ñibbi këram pour nelaw tuuti pour doog a mën a xëy nee na day biddanti su biddantee ay midi la yeewu 11 wala mu yeewu ay 10h fekk na heure boobu patron wam xëy na nee na muy tardé tardé yu bëri patron bi dema dem ba daa di annuler contrat bi mu amoon ak moom daa di koy dàq ndax nag. li muy fanaan kër maire bi moo bëri te su fanaanee foofu ay 5 heures du matin dafay génnee su demee këram pour nelaw tuuti ba nga xam ne bu 10 heures day xëy liggéey bu bu bu 6 heures du matin jotee day liggéey day daal di far biddanti ba ay 10 heures léegi nag patron bi supporté ko ba sonn daal di annuler contrat bi daal di koy dagg ndax nag dafa waxante woon ak moom lu leer te comme moom moo trahir contrat bi moo taxit patron bi dàq ko daal di annuler contrat bi. nee na li ko jaaxal lim fi nettali yëpp dégg ngeen ko au au début maire bi moo ko doon forcer naan ko tëddee ma wala ma boole la ak yi mais nee na fi mu nekk nii sax moom mooy woo maire bi pour tëdd ak maire bi. nee na nag ça un mois ba mu commencé tëdd ak maire bi ba léegi ndax c'était le 12 avril 2024 euh, la tase woon ak maire bi ça un mois muy dund lii ak maire bi. te nee nag wax dëgg fa yàlla moom dafa bëgg a arrêté ndax nag dafa yor jabaram ba pare jël énergie wam yëpp jox di ko jox maire bi en même temps nee na maire bi ci un mois bi maire bi es na ko xaw na koo yóbbi laa bi siina ndax nag ci sous six jours yi ñuy gisante ci semaine bi six jours bis bu nekk dinañ ci am quatre fois rapport sexuel moom mi ngi bëgg a dee dafa sonn nee na nag bi mu waxee maire bi man damay bàyyi ndax nag damaa yor sama jabar ba pare maa ngi gisanteeg yow presque six jours ci semaine bi te six jours yu ne bis bu nekk daal liñ ciy seek rapport sexuel dafa bëri wax dëgg fa yàlla maa ngi bëgg a dee nee na maire bi ne ko xalaatoo ko bis boo bàyyee kon ndakaaru njaay ci boppam ngay génn maak yow dootuñu xej ndakaaru beneen bi mooy nee na maire bi da koo fayaloon salle pour muy entraîner comme dafa bëggoon entraînement nee na maire bi fayal ko euh, six mois d'avance ndax nag chaque fin du mois cinquante mille la doon fay ci salle bi maire bi fayal ko six mois d'avance pour muy entre entraîner. mais nee na malgré loolu yëpp moom dafa doyal sëkk-sëkk ci li nga xam ne moo di li muy sekk ak maire bi ndax nag mi ngi bëgg a dee te moom xale bu góor la làkkat la kenn yareewu ko woon ay valeur yi léegi mi ngi dem di asaaloo boppam ci àll bi te moom musul nekk nit koo xam ne dafay asaaloo boppam ci jabaram rek la yemoon daal di satisfaire kii di jabaram waaye nag nii mu dëkkee ak maire bi ragal na dina dem a dem ba dootul mën a satisfaire kii di jabaram nee na maire bi it jëndaloon na ko lii di iPhone 14 Pro Max temps yee muy semaine bee ñu génn maire bi jëndal na ko iPhone 14 Pro Max mais nee na moom sax dafa mujjee jël iPhone bi daal di koy jaayaat. nee na maire bi yëkkati woon na oto it daa di koy jox ne ko oto bi dee ci dox say course seen waa kër aussi ku ci am soxla nga ko ci doxal ay course am nee na ba tax na yoroon na oto bi aussi di di doxal seen waa kër ay course am ku ci am soxla mu doxal la course mais nag vraiment mënatul mënatul vraiment ndax nag nee na six fois par semaine te bis bu ci nekk di nga am ak moom quatre fois rapport sexuel nee na dafa sonn vraiment bëgg na bàyyi muy sàkku ci yéen conseil nag ndax maire bi da koo menacé naan ko nga bàyyi du doon fii ci mim réew du doon fii ci ndakaaru njaay soo bàyyee ci xaj ngay dem waaye ndakaaru moom dootoo fi toogate ndax am naa ay capacité génne la ndakaaru njaay nee na nag menace yooyu maire bi di ko menacé moo tax mu daal di partager histoire ma ci émission nettali pour mbokk internet di daal koy jàppale ci ay conseil ndax moom mënatul non seulement mi ngi bëgg a dee waaye it mi ngi asaaloo boppam te yor nag jabaram mu nekk fële ci seen dëkk mu nekk lu méttee méttee métti bien vrai que maire bi mi ngi koy toppatoo tonte ñàkk na liggéeyam ndax mair bi maire bi ay deux cent mille la koy jox saa yu ñu gisantee deux cent mille am dafay rafet maire bi aussi fayal ko sal pour muy entraîner di ko jëndal ay iPhone mais nag vraiment loolu yëpp daal moom euh, euh, ni muy asaalowee boppam neexu ko en même aussi mi Eh, six fois six fois bu ne quatre fois rapport sexuel dafa metti ba egg ci lool muy sàkku ci yéen conseil nan rek lay def ba ci loxo maire bi ba maire bi menace yi mu koy menacé du ko exécuté ndax nag moom dafa ñëwoon ndakaaru njaay rek pour liggéey ay ca mbokk internautes yi lii moo nekkoon histoire waa ji mu ñëw nag tey pour partager ko ak yéen mbokk internautes yi ngeen jox ko ay conseil mu mën a tàqalikook maire bi ndax maire bi mi koy menacé ndax nag maire bi yàlla da a eh, yor otoom topp ko nag moom nee na moom sax dafa am nattu boobu nee na nattu ay maire la am nee na moom d'après trente ans la am mais xam naa ni mu njoolee nii nee na eh, fu mu pël parfois ci ndakaaru njaay ay maire yu yor seeni oto ñoo koy aborder di bëgg muy sekk ak ñoom nee na nattu boobu nag xamul lu ko ko teg nee na far nag nattu ko ci kii nag moom dafa bëgg a bàyyi kii nee na ko ilaa dee doo bàyyi nee nag ban conseil ngeen koy jox xamul lan moo waral maire yi buñ ko gisee rek dañuy bëgg kut koo kut mu tëdd ak ñoom nee na loolu daal jaaxal na ko ndax mair bu am cinquante 52 ans moroomu yaayam la ndax moom 30 ans la am ay ca mi ngi noonu mbokk internet di ko am loo ko ci conseil rek nga conseiller ko xëy na tamit vie su maire xaw ma nuñ koy waxee nee na daal maire yi daal ñoo ko sonal mi ngi noonu ngeen ko ci bu baax a baax di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal Kanasatou la Coréenne moo nekkoon ci caméra bi di nuyu bu baax a baax suñu DG Sey Latir bu technique bu Thiès Info yëpp ma leen di ziar di ziar bu baax a baax mbokk internet yi nga xam ne saa su ne dañuy safoo lii di émission nettali di leen jaajëfal bu baax a baax di leen joxaat dig daje ci yeneeni nettali d'ici là portez-vous bien et bonne suite de programme sur Thiès Info ñu daal di koy terminer ak suñu kaasu café